wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen i tamit ñaan dellu nañ seen jataay yi ñu leen baaxoo amal muy taxaw seetlu ñu di leen ko amale seen sit bi ñuy wax Tanime yi Seydina moo nekk ci xarale gi mbokk yi tey danoo bëgg a defaat benn taxaw seetlu jëmee ko ci Ahmed xalifa ñas buñ ko ci jëmee nag waxunu ci ab juddoom waxunu ci alalam waaye ci ay jikkoom moo tax ñu dellu si di ci wax ndax yële dara intéressé wuñu ci waaye nag dafay wax ci loo xamante ni ay jikkoom ci la ñuy wax te li tax ñuy wax ci jikkoom mooy dafa am mbooloo mu fi nekk moo xamante ni mbooloom sàmm jikko yi la jikko yu baax yi te jikko yooyu moom amu ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne sunu borom da koo tagg ci jikko ju rafet la ko tagge ne ko sa jikko daal rafet na booleel ko ca waxaat ko ne ko bu dut woon jikko ji nga yor ju rafet jii saaba yi nii ñuy def ci sa wet ak ci sa kër duñ ko fi def yonante bi ci boppam joxoñaat boppam ne man de yàlla yebaluma fi dara lu dut ma mottali jikko yi ngir jikko yi gën a baax ña fi jiitu woon ci samay nàttangoo ci yonante jikko yan doon xeex yi muy jikko yu rafet dama dikk man di mottali jikko yi ba bu ma fi jógee kenn du leen waxati ne leen jikko ju baax nii lay mel da ngeen di xam jikko yu baax yépp moom nag gànnaay wëccu dara bu ñuy wax ci moom sax nit ki ñuy dégg day wax ne kii da xanaa amul itte xanaa moom de kii rek ci la mën a wax dafa laal loo xamante nii ñun jullit yépp dan koo bokkandoo damay wax ne senegaal gii wuute gi moom bari na lool ñàkk diggoo gi bari na lool waaye ñun ñépp ñoo xamandoo ne nguur jigéen yàlla da ko bañ yonent bi bañ ko kon kay sunu wuute gii ñu wuute nan ko denc ku nekk denc la nga wuuteeg sa morom ci sa biir kër ba nu régler problème bii ba noppi ku ci nekk delluwaat ci sa wuute ndax kat xeex mbir mënuñu koo def te ànduñu ñun ñépp xeexandoo ko ndax gaa ya nga xam ne bokkuñu ci diine ji ñoom ñépp àndandoo lan te danoo wax ne al kufru minnatul waahida kon nanu fexe ginnaaw ñi nga xam ne baaxuñu ñoom fexe na ba nekk benn ñi baax na nekk benn wala ñu nekk benn ci lii ba xeex ko ba mu jóge ñun nag li tax ñuy yëkkati kàddoom sëñ Tuubaa dafa masa am coow lu am ci njaareem coow la xumb lool ba mu dégg ko mu laaj ne waaw coow loolu lan la ñu ne ko dafa am koo xamante nii daal dafa dem ci kër jàmbur sàcc xeeb wërsëg wa ko yàlla jox muy jël ci wërsëgu jàmbur borom wërsëg woowa gis ko di ko dàq bi mu koy dàq ñu ànd di daw am yeneen xale yu leen yokkule seeni jéego loolu moo indi coow li sëriñ bi ne cey suñ borom moo xereje ndigalam yi de teram yi de lu ci nit def ku amut woon ci aw yoon sax dana am masa dana am ci aw yoon dana am ci aw yoon ci yow waaye ñun moo wax de yàlla amul woon ci moom aw yoon waaye ndigali yàlla yii mu bëgg a salfaañe looloo tax te moom de wax dëgg yàlla bàyyilu diine dara laaj bi nu war a samp ndax moom dañuy wax ni kii ku bokk ci diine ji la walla ku génn ci diine ji ba noppi di nëbbu leeralut boppam ndax ku bokk ci diine ji diine digal la ngay julli julli juróom di weeru weeru koor di natt asaka nga mën a taxaw jàkkaarloog diine di ko wax wax ju ñaaw ji ak di de di démentir ak di di dajji lii lépp diine saxal ko nga bëgg koo daj di yàlla ku la boole ci diine ji moom tooñ na la ku la boole ci diine lislaam ji nga xam ne yonant bi sallallahu alayhi salaam nee na inda diina inda islaam yow tooñ na la wax di yàlla ku bokk ci diine ji di ko taxawoo nii di yàlla loolu moom leerut sunu bopp moom xanaa yaa ci boole sa bopp diine booleetu la ki la ci boole mi ngi tooñ diine ndax diine amul lu gën a màgg alxuraan te nee na alxuraan waxul dara ci affaire ngóor jigéen allahu akbar nanu alage nitu yonant yàlla lóot ya alxuraan moo nu leeral ne nu nangam ci la nekkoon ba moo tax mu alag leen alag loo xam mësu koo alag kenn ci nit yonante bi salaa salaam mi nga xam ne wamaa yentixu anil hawa nee na yonante bi salaa salaam waxul ci ngóor jigéen am na ku nekkoon sax koo xamante nii da daan leb lebal ak nekk koo xamante nii baatam waaye da daan dem ci kër yonante ba te ca jigéen ña te yonante bi du ko wax dara sunu mag ñu baax ñi nga xam ne dañu fee nekkoon di liggéeyal lislaam te sëñ Tuubaa da daa waxoon ne am ku mas a dikk ci moom ne ko bu yàlla wéyee yonante bi wéy mu ne ko boo dikkee doo ma fi fekk ginnaaw màbb na alxuraan ne waxu ci dara yonante bi salaa salaam nu ñu indil diine ji mu ne waxu ci dara daan na ko seetaan mu dikkaat ne mag ñu baax ñi sëñ Tuubaa kooku bàyyiwut ñooña nag doo bàyyi sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik ak ñu baax ñi fi newoon beneen bi ci desaat nee na xalifa sénéraux yii fi nekk nga xam ne ñoom ñoo wutu maam yi ak baay ya nee na ñoom signé wunu lii waxuñu ci dara ñii daal nga xam ne ñooy sàmm jikko ja ñoom ñoo nekk di doxale seen doxin waaye waxuñu leen dara lii nag ma jàpp ne képp koo xamante nii mën nga koo def cim réew daa di màbbaat ñeneen ñoo xamante nii tamit ñu kawe ci lislaam bi la muy buxaari ak muslim te danoo wax ne bu alxuraan weesoo addisu yonante bi salaa salaam weesu mooy téere bi gën a wér te ñoom sax far boo nee bu alxuraan weesoo danga naa rekk ñoo ci topp ndax ñoom nettali wunu dara lu dul li yonante bi salaa salaam doon wax loolu la nettali loola lépp mu ànd ak dàjj ko ne li ëpp ci buxaari ak muslim dara wéru ci ay fen la waaw moom li ëpp ci waxam wala ay waxam ndax lu wér am na ci moom Ahmed xalifa Niass moomu ay waxam la ca nekk bu nu ko taaraaroon ndax dinañ ca gis lu wér ñii nag bu leen bëggee wedd te Buxaari ak Muslim de dëgg yàlla diine ji ci ñoom la tasaaroo wax yonante bi la cay dëgg ak la ci du dëgg ci ñoom lañ ko xamee kon nag ñoom ku bëgg a dikk taxawu lislaam kën yi mu amoon yépp di ci dëgër lu ngoy ci nga dikk ne yooyu yépp dara wéru ci wax dëgg yàlla kii nag moom kenn kenn kenn kenn xamul loo ko kii xam naa ne joxati ko àq judut àq doomu aadama la yàlla bind ci moom amul àq ju yeeyootoon doomu aadama daal la ko yàlla binde àq jooju la ko nit deseel waaye àq wormaal ko ci dara ci kër sàngam la bokk ci diine ji la bokk ki la loolu moom yeeyootu ko moom yeeyootu ko mbokk yi Buxaari borom xam-xam yépp dañ cee nettali lu yéeme loo xamante ni am na ci moom nga xam ne lii am ci moom taw féexam la woon goo xamante ni gu mu judduwaale la wala goo xam ne dafa dikk rek suñ borom teel ko koo defal moo tax cërub diine ji mu am ci diine ji mu am ci cër bu rëy rëy rëy wax na ne bi ko waajuramu jigéen di indi àdduna muy juddu dafa judduwaale wut ay bët Buxaari dafa judduwaale wut ay bët yaayam loolu xaw a metti ci xolam mu tëdd ba génn guddi moom yaayam mu jëkki-jëkki daal di ñaan sunu boroom ne ko julli ñaar ràkka ne ko damay ñaan sama doom ji mu nga delloo ko ay bëtam mu gis mu xool muur xale bi tëral ko julli ñaar ràkka di ñaan daldi di tëddaat ci guddi gi di nelaw bi mu tuddee di nelaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal koy gis ne ko insa allahu rabbi yàlla dana nangu sa ñaan dana joxaat sa doom ay bëtam nee na ci biir nelaw yi mu ne bërit daal yeewu yeewu jaxran yeewu daal muri fi mu muuroon doom ji muy buxaari mu muri ko gis muy xool allahu akbar waaye kii ku ko bëgg a diingat wala nga bëgg ko ne nàngam te moom ci boppam de day wax ne moom sëtub yonent bi la toujours daf koy wax di fëgg ndi dënnam yonente bi de kon li nga doon ci moom mooy aw askan càllale waaye jikko yenuy ya ya tax ñuy tagg yonente bi ak lay tax ñuy mbokkook moom moom bokkoo ci yaakaar naa ku dem jàng alxuraan tabbat yaddaa abi lahabi kooku moom jàpp naa ne kenn gënu koo jege yonante bi te jëriñu ko dara dara dara la ko jëriñu ndax jikko ja yonante bi sallallahu doon tabax ca Makka ak Madina jikko yooyu moom da caa yorut woon dara kon ku ca yorut woon loola ku jàng saar woowu xamal na jàng na ko ci yow lu nu wax aboo laxaw rek wax nan la ko ndax yéen yam jikko yéen yam pas-pas yéen a yam kii mbokk yi kiy wax ci jërul jël temps bu bare bare bare ndax lii moom ku ko am bu lislaam doon dox dëgg-dëgg danañ la woo àtte la lii nga wax fan nga ko teg walla lii nga wax bu fekkee jullit gin xamoon ci yow mi ngi ci yow tuub ko boo nee tuubu ko ñu àtte tëral tey lislaam ci yow waaye nag wax dëgg si yàlla mag moo xamante nii dem nga ba toll fii am na woykat bu waxoon ne lii moo tax sawarumaa am doom waaye fi ñu toll moom daanaka lii mënaan na noon waaye ne lii moo tax sawarunoo am bàyyi ndax bàyyi yu mel nii wax dëgg yàlla am ko ci réew mii di senegaal wax dëgg yàlla kersa la kersa la ju rëy rëy rëy la euh, euh, lii daal ay wax la joo xamante nii dafa jëm ci moom lii nag du gan ci moom képp ku fi mas a yëkkati kàddu yàlla di ko jéem a yëkkati nërmeel na say mbir xeex na la xeex boo xamante ni amu ci sago amu ci kii beneen bi ci des mooy télévision yi nga xam ne suñuy télévision la ñi ko moom ñépp ne ñu ci ay jullit lañ ñoom nag ñoo yàkkamti ci lu mel nii ñi ñiy wax di défendre lislaam sax mayuñu leen temps ci télévision yi mayuñu leen temps ci rajo yi mayuñu leen dara toujours te moom mi ngi ni waxtu waxtu wi ñu gën a nit ñi gën a concentré wu ci diine seen xol di gën a bànneexu diine muy weeru koor weer woowu la gën a mën a taxaw ngir màbbu diine ji tele yi tamit gën koo mën a woo ngir jàppale ko ci liggéey boobu waaye bu fekkoon bàyyi nañ ko fële kenn woowu ko kenn waxloowu ko kon yàq naa ni message am bii du jàll li nga ciy tiit nag mooy euh, xale yi ñëw loolu moo tax xeex bépp ñuy xeex ndax ñii di wax ci diine ñu ci bare bari paase nan yàlla defal na leen sutura ñoom ñoom seeni waajur di leen yar ci diine nàmpatal leen ci suuxat ci seeni xol nan li am solo mooy suuxat ci seeni xol ba ñoom lu baax rek lañuy def lu baax lañuy def kon nag kii di wax ñi daal ne ñépp xam ne noon la boo xamante ni noon la ci biir lislaam ji moom diine lislaam ji yonante bi jëloon indil nu ko am noon la ci moom bu ci taxaw ku ko noonu baax na noonu xam na noonam lislaam nga noonu ku ko noonu witam xam ne noon noonab lislaam la nit nag du am li gën ci moom nit taxaw di ko yàq mu taxaw moom croiser la ay baraam loola day wane ne moom li mu yor xamu ko wala li mu yor bëgg ko su ko bëggee dana taxaw lu mu ko jaral mu jaral ko loolu te lii kàddu yu mag a ci war a jóg du kàddu yi Samba Ndiaye yeeg sama kàddu yu ñàkk solo yeeg yooyu waaye kàddu yu kilifa général xaddu kilifam gu mag a mag a war a jóg taxaw ci kawam dal ko wax ko wax ju leer nañ naññ nañ naññ naññ ndax ku bëgg a defar ak njaboot nag gis noon bu toll ñii nekk ci sawet wet nag wax dëgg si yàlla boo taxawee nag ne cell maandu ci moom wax di yàlla soow askan moom beeboo ñu tiital leen beeboo tiital leen ndax moom ngànnaay yi mu am moom ngànnaay yàlla wax la am ak salfaañe diine ji ngànnaay yooyu nag moom xeebu ko tamit ngi jóg te jaral na ko lu nekk fi mu toll ci at saa boo ko nee kaay fii wax sa nangam mu ñëw donte aw yatam la yor di ca dem di di sukkóot ba àgg dana dem wax li mu bëgg a wax yow mi tëdd nag yow tamit tollook moom ay at te mun la waxee nga ne ak magee ma jàpp ak nangam ma jàpp moom ma ngay liggéeyal ka ko ñor ka mu jàpp ne dina ko fay ak la mu jàpp ne dana ca am intérêt ma nga koy liggéeyal lu mu ko jaral nag jaral na la mag mu toll ni moom a waroon a jël aw yatam sukkoot ba àgg ci télé yi toog fa wetam wala toog fa muy toog lam fa waxoon lépp mu dindi ne lii wérut lii wérut lii wérut lii xam ne moromam magam ma yore ab kaan na mu yore woon aw yatam di sukkoot ba àgg am mag sukkoot ba àgg ne mu fi wax lépp dara wéru ci loolu moo mën a dindi wax ji waaye sunu kalaas gi yeeg sàmba kii dindiwut wax ji daji nañ yonent bi salaa salaam dane ku gis lu ñaaw lu bon nanga ko dindee sa loxo na nga ko dindee sa làmmañ nanga ko bañ yooye nag moo waral suñu wax ji waaye du wax joo xamante nii jàpp nañ na sax moom mën na ko yëngal dara mën na ko yëngal dara kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñépp di xam ne daal